Euh, Ibrahima Badiane euh, maa ngi lay nuyu yow yaa jiite baykat yi nga xamante ni euh, ñoo dëkk ci Sine Saalum maanaam ci kawlax ak li ko wër fan yi ñu génn njiit bi di président Macky Sall amal na benn tournée ci Kaolack lu jëm ci wàllum mbay mi mu ànd ak ministre bi ñu denk wàllum agriculture di Moussa Baldé tournée boobu lan moo ci sa xalaat. tournée boobu ñun liñ ci gis mooy mbégte parce que nit ki moom bu fekkee ne def na li mu war a def parce que dafa am loo ngi suñ kanam muy njaayum gerte muy leneen loo xam ne ñun mënuñ koo faj ñoom ñoo ko mën a faj. ñi nga xamante ni nag euh, ñoom ñoo jàpp ne ministre Moussa Baldé dafa sélectionné tool yi nga xam ne moom la président visité loolu lan nga siy wax. waaw xam nga xam nga loolu yëpp li ko waral mooy ñoo xam ne dañoo bëgg a jiite béykat yi te nekk ci àll bi di wax pour ñu ràññee leen parce que ren ku ne xam na ne man maa njëkk a gën ma ne ministre ak président bu leen neexee. yoon bu ñu jël rek dëkk bu ñu njëkk a jot rek nañ koo xam ne amoon nga ji bay euh, jiw nga vraiment sa nawet dox na te te te am nga yaakaar président bu fa ñëwoon it gis li mu gis fale rek lay gis foofu. lan ngay wax ci ministre Moussa Baldé. Moussa Baldé dama ne euh, am na ma bu rëy bu am parce que ñun dañ doon wax ne les ayants droit ne sont pas maanaam ñi war a am duñ leen jox dañ doon jox ay homme d'affaires ay politiciens ay marabu ren boo seetloo béykat yi leen jox béykat yi leen jox yàlla ji taw na euh, ñu ngi xaar production record Moussa Baldé li ñuy def mooy euh, gërëm ko rek te naan kon na continuer parce que fi mu nekk foofu la